ma yaakaar ne euh, euh, let bi nga xam ne moom lañ def c'est surtout par rapport ak fi mu nar a dugg bi monsieur Thiam di wax man dama gëm ni xëy na peut ak situation bi ni mu demee parce que aussi tamit il faut savoir que euh, et puis Birame wax na ko di termes yi xëy na peut-être mooy nekk ay termes yoo xam te nit ñi duñ ko comprendre mais c'est sûr et que finalité bi ci li nga xam ne nii mooy li moom lañ ci def impact bi ci population bi la war a dem directement loolu mooy finalité bi normalement parce que duñ ko jël def ko teg def ñu ko noonu rek pour pour pour pour pour zéro. Euh, dafa am nag ay diggé yoo xamante ne nii gouvernement bu bees daf ko diggé woon avant muy ñëw ci wàllum dundu beeg yu demee noonu. Euh, je suis parfaitement d'accord ci fi nga waxee ne xëy na peut-être ci précipitation lay doon mais nag il y a une demande qui est là et qu'il faut satisfaire. <laughs> c'est ça man lim sama jàngat ci ci mbir mi mooy il y une demande à satisfaire mm-hmm. et aussi il y a euh, li nga xam ne nii ay ay ay ay ay ay ay euh, nu ñu koy waxee nu ñu koy waxatee sax mm-hmm. ay digle yoo xamante ne ni defoon nañ ko parce que premier ministre soo ko génn na wax ne situation bi ak ni mu demee ak surtout euh, li ñuy pour li ñuy li ñuy consommer li ci ëpp nekkul loo xam te ne fii lay jóge il faut ñu euh, pour pour subvention yi dafay xaw a metti mais nag euh, li nga xam ne moom lañ def mën na réguler li nga xam ne nii euh, mooy mooy permettre pour que ñu mën a am benn stabilité pour benn pour benn temps pour après jéem a xool nu ñuy def parce que gis nga li ñu xaalis bi ñu jël yépp dina am lenn loo xamante ne nii dinañ ko dugal pour que dund bi mën a yomb surtout population yi mën a mën a mën a soulager wu tuuti mais dina ci am leneen loo xamante ne nii ci investissement lay doon boo xamante ne dina mën a apporter après loo xamante dina permettre pour que sénégalais yi euh, mën a euh, suqaliku parce que bu ñu fàtte ne euh, kii baa ngi ñëw hivernage baa ngi ñëw. Mm-hmm. li nga xam ne nii mooy bay mooy mbay mi premier ministre bi ak gouvernement wala sax président bokk na ci levier yi nga xam ne nii te du sax bay bi kese napp bi tamit mi ngi fi. parce que am na ay accords yoo xamante ne wala sax ay mesures yoo xamante ne nii ministre bi nga xam ne mooy ministre de la pêche jël na ko xëy na euh, ñoom am nañu lu ñu yaakaar ci bay bi ci mbay mi ak aussi tamit napp bi nga xam ne moo nar a ñëw pour que ñu mën a sukkandiku bu baax a baax a baax et que li nga xam ne moom la ñuy consommer mën a nekk loo xamante ne xëy na peut-être dina jóge ci ñun te loolu lu am solo la. Euh, li nga xam ne nag mooy par rapport ak ki nga xam ne nii moom la ñu yónni pour mu dem euh, defi li nga xam ne mooy courtage bi mais euh, dans ñun on n'a pas les moyens de le faire amuñu expertise bi nii xam-xam bi donc koo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla li nga bëgg munoo amoo amoo ko munoo kaa defal sa bopp mais keneen ku la koy defal foo jaar di nga ko di nga am loo teg ci ci ci ci loxoom. loolu cela va sans nul doute maintenant ci naka lañ ko ko ci naka lañ koy tegee ci loxoom wala lan la ñu teg ci loxoom loolu xëy na peut-être c'est domaine la boo xamante ne nii <laughs> même bu fekk comme même même bu fekkee ne war nañ kaa leeral euh, man yaakaaruma ne am na trop importance parce ak état bii état bii ñëw li nga xam ne nii loolu la loolu la indi comme rupture yaakaaruma ne dina def li nga xam ne nii moo yées lii nga xam ne ñi fi nekkoon loolu lañ doon def loolu duñ ko def ah yaakaaruma ko wala buñ ko defee it itam ah euh, dinañ ko xam de toutes dinañ ko di dinañ ko xam mais non li ci li ci li li li li li am solo mooy comme monsieur Thiam ni mu ko waxee euh, mbir mi fi muy dugg après te man ci jàngat bi ma ci am ci fi muy dugg d'abord pour euh, satisfaire demande bi nga xam ne moo fi am ci wàllum dund gi gu gu cher gi ñu mën ko stabiliser pour que Sénégalais bi mën a retrouver boppam mais aussi tamit du lépp lay doon dina ci am benn partie ci li nga xam ne ni moom lañ jël boo xam ne dinañ ko dugal ci ay investissement te investissement yooyu noonu man li ma gëm mooy que ne euh, dina dugg soit dina dugg euh, dina gën a renforcer li nga xam ne nii mooy mbay mi ak aussi tamit euh, li nga xam ne nii mooy secteur primaire bi ñu gën ko ñoŋal pour que ñu mën cee sukkandiku bu baax a baax a baax Birahim nag aussi tamit am na benn lu mu wax lu am importance par rapport ak bor bi nga xam ne ni moom la ñuy dem di jëli ci yeneen dëkk yi or am nañu ñun ay ay ay ay ay ay ay institution yoo xamante ne nii mais loolu la waroon pallier dañoo am ay institution yoo xamante ne nii lu mel ni ay CEDEAO ak ñoomi seen mais gis nga bu doxoon fi bu doxoon bu jaaroon yoon du ñu doon soxla di jéggaani pour ami leneen feneen dañ koy mën a am suñu biir ci ay coopération yoo xamante daf ñuy permettre pour que ñu mën a doxal mbir mi parce que les institutions ne permettent que di jàppalante estion yi nga xam ne moom la ñuy teg dëkk yu bëri di ci bokk pour que ñuy jàppalante la pour que par exemple li nga xam ne nii mooy manquement wu Sénégal euh, euh, Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mën ko compléter lii ko manquement wu Côte d'Ivoire Sénégal mën ko compléter et c'est pas pour rien ku ci nekk am benn spécificité li ci ci li nga xam ne nii mooy sa économie ku ci nekk am nga benn spécificité boo xamante ne nii yow am nga ko te keneen ki amu ko. te su boobaa foofu la ñuy laajee wala foofu la ñuy soxlee li nga xam ne ni mooy complémentarité et c'est comme ça que ça se passe dans dans ci ci institution internationale yu yu yu yi ci ëpp boo demee par exemple lu mel ni Union européenne dëkk bu ci nekk am nga sa benn spécificité spécificité boo xamante ne ni ci sa wàllum économie mais mooy pal mooy moo lay permettre pour que ngay mën di euh, nu ñu koy waxee ngay mën di renforcer wu mais aussi tamit li nga xam ne nii euh, lu lu lu excédent lay lu lu lu surplus lay doon mais mën a reverser wu ba keneen koo xamante ne nii da koy soxla mën cee bénéficier wu. donc foofu la ñu war a toll et que aussi tamit xëy na peut-être bokk na ci chantier yi nga xam ne nii mooy chantier wu euh, président de la république wala aussi tamit chantier wu euh, gouvernement du Sénégal jéem a xool nu ñuy def pour gën a ñoŋal. li nga xam ne nii mooy ànd bi ñuy ànd te yaakaar naa ak voyage yi nga xam ne nii ñi ngi naan voyage yu euh, président yi ça coûte dafa dafa cher ça ça ça coûte au contribuable mais c'est c'est à ça que ça sert mooy lan mën a jàppale mën a mën a gën a ñoŋal li nga xam ne ni mooy institution yi euh, régionales yi pour que ñuy mën di jàppalante suñu biir et ñuy bañ a chaque fois di jéggaani di dem feneen foo xamante ne nii leneen lañ fay am euh, mën na nekk lu gën a diis mais nag il faut savoir qu'on est encore une fois de plus pauvre et très endetté donc euh, euh, am lu lu mënul ñàkk foog foog foog mu am mais aussi tam bu amee ñu mun a xool naka la ñuy def ba euh, population bi nga xam ne nii ñoom ñooy ñoom ñooy impacté yi ñu mun cee gis seen bopp bu baax a baax. te gën a te aussi waaw bon gën a communiquer nag